ay ca murit Touba ca kanam weer wi dee na wajalilaayi maskani Touba misras mi abijaayi xayri manabaat Serigne Touba liggéeyal ko warteef la ci ñépp lan mooy Touba ca kanam loolu day mel ne laaj la boo xam ne ñëpp xam nañ ko du Touba ca kanam du lenn lu dul mbooloo moo xam ne rek dañoo toftalu sosu jokk ci mbooloo yi fi jiitu woon te sëriñ bi xàllal leen boppam ñu samp di liggéeyal sëriñ bi te yàlla rek tax loolu mooy Touba ca kanam Touba ca kanam mooy mbooloo moo xam ne dañoo jóg takkatoo boole seen i doole seen i xel ak seen i xalaat ak seen i alal fas buñ ne ñan ñooy Touba ca kanam nag mooy fa ab ku di murid rek wala képp ku bëgg lu baax yooyu Touba ca kanam Touba ca kanam kon mbooloo lañ moo xam ne. sàkk ngërëmal suñu borom rekk leen tax a jóg Touba ca kanam liggéeyal Serigne Touba rek ko tax a jóg loolu mooy Touba ca kanam Touba ca kanam nag dafay euh, kuréel goo xam ne dafa am lu mu génnee ci sëriñ bi may yi ko suñu borom may ci wet bu ne ba ci wetu économie wàllu développement jëmee am réew kanam Touba ca kanam di ci misaal mu ama am solo moo xam ne xëy na bu waxtaan bi ubbi ko daañu ci gën a am lu leer bi mu juddoo nag doon ak kuréel nekk ci réew mu mel ne Sénégal nga xam ne réew la moo xam ne dafa am ay loi ak i règlement yu fiy dox kon boo fi sampee kuréel bu toll ne Touba ca kanam faaw nga jëm koo yoonal loolu moo tax Touba ca kanam ci statut juridique mu doon ab association am statut association boo amee association kon dina am euh, bureau exécutif dina am comité directeur comité de direction boobu assemblée générale Touba Kanam ñoo koy fal te mooy mbooloom mi comité directeur bi cinquante 51 membre ñoo koy composé bu ñu leen falee ba noppi ñoom ñooy fal bureau exécutif président secrétaire trésorier ak seeni adjoint waaye ñooy falaat nag commission yi nga xam ne ñoo ngànk liggéey Touba Ca Kanam toll ci fukki commission ak ñeent ñooñu dañoo wëlbatiku nekk ci ron kilifa yi Serigne Abdoulahat ak Serigne abibu mu nekk ci statut juridique bi fexe na ba sàmmonteeg doxalinu réew mi waaye wàccu benn yoon njàngaleem sëriñ bi wàccu benn yoon ni nga xam ne mooy doxinu murit ci pas-pas ak takku tey liggéeyal sëriñ bi te yàlla tax bi loolu amee nag ba kuréel gi taxaw dañoo daal di jànkonte nag jàmmarloo ak lu mat ay jafe-jafe yu yuy toll ci juróom-ñeent wala juróom-ñett bari na waaye ci yooyu laa ci mën a xayma ginnaaw bu mu doonee kuréelu pas-pas jafe-jafe bi ñu njëkk a jànkonteel mooy ak nosu ñu koy wax défi organisationnel ndax mbooloo yi li leen di mën a jëme ca kanam mooy ñu nosu organisé wu bañ xam kan mooy kan ak kan mooy def lan nosu googu mooy li ma doon wax léegi ci wàllu tërël yi ñi nga xam ne moom la Touba ca kanam tëddee waaye ñu amaat beneen jafe-jafe bu ñu jàkkaarloon te mooy kuréel goo xam ne dafa jóg am pas-pasum ne dafa bëgg dajale ñaari millions yi nit weer wu dee kenn ku nekk ci ñoom joxe ñaari téeméer bu ko defee at mi dinañ ci ma dajale dajale ñaar fukki milliards ak ñeent loolu ku nekk xam na ne laaj na communication bu rëy rëy laaj na fu nit mën a nekk loolu mu yëg ko leer ko waaye du ca yam duñ ca yam dañuy fexe ba jamono bu nekk ñu koy li ngir ñaar téeméeram yooyu nga xam ne jaayante ne ko fas yéene ko ànd ak Touba ca kanam liggéey la ko sëriñ bi ci Touba mu sax ci ci cadre communication boobu bokk na ci ni tax ñu daje si sees ngir jàpp nañ ne fii buñ fi jógee tey ba def waxtaan wi ba nopp ay cellules yu baree bari dinañu samp ci ndakaaru ñoo xam ne ña koy jiite dañuy ànd ak yi mbooloo di soññanteeg ñoom ñuy gën a jàpp ci liggéey Touba ca kanam bii ba àddi yi ciy joxe jamono bu nekk ñu koy mën a dajale muy ñëw ñetteelu défi bi nga xam ne moom la Touba ca kanam jànkoonteeloon mooy collecte de fonds fexe ba dajale alal yi te loolu dafay lëkkaloo ak gestion bu transparente création de confiance Touba ca kanam bi mu doog a juddu bokkoon na ci jafe-jafe yi gënoon a nekk jafe-jafeem ba tey jii mooy fexe ba li ñuy soxla par weer te mooy ñaari milliards nekk 24 milliards te boo ko waxee ñi nga xam ne ay économistes lañ ku mel ne ñoom seen docteur bi docteur Khadim Bamba Diagne mën nañoo jàpp ne xàll wi ñu xàll day xàll wi yaatu sas wi ñu tobbi day sas wu rëy rëy neexut bay waaye ñoom du leen jaaxal ndax ñoom ay taalibe lañ dañu xam ne du ñi ñuy xool ci Touba ca ñoo ñooñu ñoo ñoo ñoo ñooy tax loolu mën a am déedéet. day mbirum Serigne Touba te Serigne bi moom fu mu àgg ak lu mu am yitte ak pas-pas yitte ju kawe ak pas-pas ak dogu moo ko fa àggale kon ñaari milliards yi nga xam ne jàpp nañ ne mën nañ koo am par weer lu mën a nekk la waaye ngir mu nekk nag faw kenn ku nekk ci ñun da koy gëm ba noppi di ko gëmloo ku mu am loolu mooy tax ñu mën caa àgg te loolu mooy dugg ci communication ak massification ñu amaat beneen défi boo défi boo xam ne jàkkaarloo nag ñun bi Touba ca kanam di doog judd ba tey jii mooy li ñuy wax gestion bu transparente mooy leeral laaj nit ñi lu ñu man di ko def suñu xam Touba ca kanam bi muy doo a judd li njëkk li ëppoon ci débat yi daan débat ak di ko waxtaane mooy nañu fexe ba Touba ca kanam doon kuréel bu wóor nañu fexe ba Touba ca kanam xel man cee dal loolu nag sant nañ ci yàlla bu baax a baax donte ñoo ngi gën wéy di ci soññiku di ci soññante ndax lu leer du doy waaye euh, bokkoon na ci bokk na ci xeex bu gën a mag boo xam ne Touba ca kanam moo koy xeex mooy fexe ba alal ji ñu di ko def fu leer nañ ñi di ko toppatoo di ko saytu ba mu leer loolu moo tax euh, am na ay kayit yu ñuy séddale defe naa waa organisation war nañ leen koo jox ñu def ci lenn ci réalisation wu Touba ca kanam def na ci biir benn tableau boo xam ne Touba ca kanam ba mu juddoo léegi ba ci weeru avril bii li mu jot a dajale ci xaalis man ca lim ci dépensé man li des ci compte Touba ca kanam yi ba ci weeru avril bii mi ngi ci këyit boobu te mi ngi ni ma tiim Touba ca kanam bi mu tàmbalee léegi taxaw gi mu taxaw ginnaaw bi mu doonee mbirum sëriñ bi te ñu yëkkati ko rek fas yéene cee liggéey sëriñ bi taxaw gi mu taxaw ci leeral ak saytu. ak fexe ba nit ñi am ci moom ak wóolu loolu tax na ci diggante ñeenti at yii ak euh, juróom wala juróom benn weer yi ci topp ñu dajale ci juróomi milliards ak ñeenti téeméer ak ak juróomi téeméeri millions yu manqué tuuti. 5 milliards 492 millions 124 mille 352 loolu mooy li nga xam ne Touba Ca Kanam dajale na ko depuis 2017 ba avril 2021 loolu li ñu ci dépensé. nga xam ne génnee nañ ko ci liggéeyal ci sëriñ bi ci dëkk bi toll na ci 4 milliards 577 millions 566 mille 654 loolu mooy réalisation yi ngeen gis yépp Touba ca kanam euh, def ko ci ci biir réalisation yooyu mën nañ cee lim danaa ci lim tuuti te waxtu bi danañu fot waaye balaa ma ci ñoom ma wax leen ne kon avril 2021 li def ci compte Touba ca kanam mi ngi ci 914 millions 557 mille 697 ginnaaw bi ñu ci defee réalisation yu toll ak 4 milliards 500 te loolu mi ngi ci ñeenti at yi ba weeru avril bi ñu nekk nii loolu nag bu mënee am dafa fekk ne day kéemtaanu ñaari téeméer yu ànd ak pas-pas ñaari téeméer ñëpp xam nañ ne fi jamono toll xawees naa ma ne wax ne soloom bareetu waaye ak am solo. bu fekkente ne ki koy joxe saxal na ko te bi mu koy joxe mu di ko joxe rek ngir yàlla fas yéene ci liggéeyal sëriñ bi ci dëkk bi bu boobaa ñaari téeméer yu am solo lay doon loolu moo tax ñaari téeméer yooyu mën a jur liggéey bu ama am solo boo xam ne fu waaye man a toll ci àdduna bi léegi yaa ngi koy bàyyi xel di ko waxtaane rawatina biir Sénégal loolu sax xëy na mooy xaw a duggaale tuuti ci li nga xam ne waroon nañ ko waxtaane jëm ci Touba ca kanam naka la mën a nekkee modèle wala naka la mën a participer ci développement bu Sénégal ndax bi ci njëkk rek mooy koo xam ne li muy joxe bi mu koy joxee da koy joxe ak gëm-gëm ak pas-pas nga xam ne joxewu ko rek di ci xaar bu jël siwaat ci moom ci saasi li ñuy wax retour d'investissement boo xam ne day ñëwaat léegi léegi tooba soxal maama suul ni déedéet kii joxe ñaari téeméer ci Touba ca kanam dafa gëm ne sëriñ Touba a koy jox te dafa gëm ne Serigne bi jaar naa ak moom foo xam ne amul keneen ku ko fa mënoon a jaar dafa gëm na tamit mi ngi yaakaar ci sëñ bi ëllëg loo xam ne yaakaaru ko ci keneen loolu mooy ñaar téeméer yu ànd ak pas-pas loolu am na leneen lu muy wat mooy dëkk bu nekk ku fa dëkk bu ne am na lool la ci war donte yaa ngi joxe li la ci war ci geneen anam ci ay taxe wala impôt wala yeneen anam yoo xam ne bàyyiwoo ci xel waaye loolu dafay mel ne léeg-léeg day xaw a am distance digganteem ak nit ñi ba duñ ci bàyyee ci waaye ci li ñuy wax ne euh, participer ci développement u Sénégal ku sañoon boo jaaree ci tali di ko daw mu wóor na ne tali bii moom yaa ko defal bu duggee ci hôpital bi ca fajoo mu wóor na ne hôpital bi yaa ko defal boo boo dee dox guddi dëkk bi leer nañ mu wóor na ne yaa ko yaa ko leeral boo dee naan am ndox mu wóor na ne ndox mii yaa di fiy pexe ba jot ci loolu day loo xam ne dafa bokk ci li dundal nit ndax day day tax nit ki yëg ne moom dara moom dara la am na lu muy tekki day tax nit ki yëg ne moom bokk na day day tax mu yëg boppam ci li nga xam ne moom la nit ñi bokk loolu moo tax modèle de développement participatif bi nga xam ne Touba ca indi na ko day nit ki gën a yëg boppam day tax nit ki gën a xam ne moom nii doon na dara te loolu dafay delluwaat ci njàngaleem sëriñ bi mooy nit ku nekk jàppal ne lii baax yaa ko war a baaxal loolu euh, dafa am fan yii dëkk bu ma dégg ñu ne wala ay dëkk ñu ne dafay nekk ci ay nit mat nañ treize mille personnes fukki junni nit ak ñett am nañ poste de santé mais dañu am jafe-jafe ambulance nan lañ mujjee def kenn ku nekk na nga làmb sa poste joxe loo man xaw ma ñaar téeméer lañ ko tudde loolu mooy moo dellu Touba ca kanam treize mille personne bu kenn ku nekk joxe mille francs treize millions wenn weer nga mën cee jëndal sa bopp ambulance te ambulance boo ko jëndee teg ko bu manifestation amoon doo ko taal doo ci sànniw xeer dama joxe misaal ambulance kenn du ko kenn du ko kenn du ko laal nit ki li nga xam ne moo ko moomal boppam doo wëlbati ku ñaxtuwaat di ko toj donte sax réew mi di fi nekk lépp waa réew mee ko moom waaye ngir wane na nit ki li muy dugal loxoom di ci jàpp loolu lay gën a bàyyi xel loolu lay gën a fonk loolu lay gën a toppatoo Touba ca mu yàgg nit woo la ne la yéen waa Touba ca kanam gis naa seen benn oto bërëb sàngam muy def nangam lu tax loolu moom dafa jàpp ne alal jooju moo ko moom kon bu ko gisee ci bërëb jàpp ne lam fa nekk du yoon da ko war a da ko war a wax loolu li muy tekki mooy nit ki ngir mu mën a jàpp ci développement bu ma mën a doon da ca war a yëg boppam loolu nag mooy modèle de développement bi nga xam ne Touba ca kanam indi na ci biir réalisation yooyu ñu doon wax xam ngeen ne wàllu jàng ak jàngale Touba ca bu rëy rëy liggéey xëy na loolu sëñ Saliou Diakhaté dana ci mën a gën a dikk ci yaatal waaye bu ma ko dee tënk rek dama naan lu mat téeméeri daara Touba ca kanam réfectionné na lu mat euh, ñaar téeméer ak juróom benn fukki sëriñ daara Touba ca kanam jàppalante naa ñoom te dolli leen xam-xam ci la ñuy liggéey camion bi dans Touba ca kanam jënd na ko ci daara yi waaye fas yéene taxawal bayti zakat boo xam ne képp koo xam ne génne nga ala asaka te bëgg ñu génneel la ko ca anam gi lislaam gën a taamu boo ko joxee ba ju fekkaat boobu dana ko mën a taxawee ba la nga bëggoon nga am ko la ci lislaam bëggoon ñu am ko ca Touba Ca Kanam am na projet bu ñuy woowee boolu daara daaray alquran yi lim bu baree bari dañ Touba bu fekkonte ne kër bu togg añ ku nekk wala nga togg reer ba nga yekk benn boor jox ko daara jëla gën a jege kenn duutu am jafe-jafey nekk projet boobu Touba Ca Kanam ubbi na ko di ci woo ñëpp ba tey bu ñu ñëwee ci réalisation yi nga xam ne def nañ ko bay ba mu jëm koo tënk ndax waxtu wi day xat Touba bari woon na loolu bërëb yoo xam ne bu tawee day taal yi ci gënoon a metti tolloon na ci ñaar fukk li ëpp ci ñaar fukk yooyu Touba ci kanam defal na ko vidéo yi leen ko won amuñu jotut man koo lim ndax temps bi daf ñuy xoj tali bu ñu goudronné ci Touba ca kanam la ñu a gisee kuréel daayira wala association bu ko defar ren bi defar na ci lu tolloog 5 virgule 5 kilomètres bu ñu ñëwee ci wàllu wér-gu-yaram juróom benn bërëbu fajukaay yoo xam ne bu ci nekk am na dayo daanaka centre de santé wala mu ëpp ko ndax modernité ñett yi noppi na benn ba ma ngay liggéey yeneen ñaar yi équipé nañ ko ba noppi foofu dinaa fi jaare ne sëriñ Mountakha toujours daf ñuy wax ne nañuy waxtaan di déggoo ak waa gouvernement bi ndax ñun li ñuy def ñoom la waroon waaye ni ko sëñ am la doon sëñ Abibou di waxee ñun dañoo jàpp ne Touba lu fa waay di def ñun nga koy defal ngir taalibe sëriñ bi ndax dañoo jàpp ne léppi Touba taalibe yi di war ministère de la santé ministre bi am nañoo moom jataay waxtaan ak moom ngir ñu am collaboration ci wàllu wér-gu-yaram waxtaan woo mi ngi wéy ne waaye dinañ jaar fii ñaan leen ñaan ay collaborateur ñu gën koo baral ba li Touba ca kanam bëgg ci bërëbu fajukaay yooyu te mooy ni ñu def ba tabax ko ñu def noonu ba ànd ak ñoom saytu ga ñoom ñi yor paj mi Touba kanam di jàpp ci saytu gi ndax jàpp nañ ne ma doon waxee léegi askan wi lépp lu ñu liggéeyee seen bopp wëlbati ko di ko saytul seen bopp ca lañ koy ca la ñuy gën a gisee seen bopp te ca lañ koy gën a wàggare ci wàllu wér-gu-yaram Touba na kanam bëgg naa taxawal mutuelle de santé tàmbali nañ cee waxaat ak directeur semi ngir ñu am agrément wala autorisation lëkkaloo ceeg ñoom taxawal mutuelle de santé boo xam ne dinañ mën a jàppalanteeg waa Touba ci wàll wér-gu-yaram ndax mutuelle de santé bu am doole mën naa dem ba daanaka am paj àgg ci nga xam ne nit daanaka mën naa àgg ci faju te du fay te loolu am na réew yoo xam ne expérimenté nañ ko te réew yi ko expérimenté ñun am nañ lu ñu amut ndax ñun dañoo am Serigne Touba ba tey ci wàllu liggéeyu Touba kanam yi bari na luy tolloog juróom-benn camion sapeur pompier ci ndimbalu Italie di ci santaale waa diaspora bu Touba ca kanam ay jàmbaar lañ jébbal nañ ko sapeur pompier ak ambulance yu bare bari wàllu éclairage public fi mu ne ni ñëw ngi ci 9960 lampadaires yoo xam ne ñu ngi koy monté ci Touba loolu dana ci profité jaajëfal waa commune bu Touba ci ànd gi ñu ko ànd ak Touba ca kanam jàppale leen ci jaajëfal ci tamit Sénélec ñi nga xam ne ñoom ñoo yor courant wu dëkk bi mais éclairage public domaine de compétence commune la te boobaa ngeen ñi ciy ànd ak Touba ca kanam ci. am na benn corniche boo xam ne lu mat 180 candélabres lañ fa war a monter liggéey bi tàmbali na ña ngi koy installé actuellement diggante corniche bi tàmbalee ci rond point Gare Dakar ba ca rond point Ndindi ba ci wàllu social mooy dimbalante Touba ca kanam léppam social la mais teewul am na commission sociale boo xam ne li ëpp ci koppar yi ñu dajale ñoom génnewul ci xaalis Touba ca kanam membre Touba ca kanam yi ñoo koy jaayante waat ngir def ko ndolleen ci liggéey bi bi liggéey bi tàmbalee léegi liñ ci dimbali ci aw nit toll na ci juróom-ñaari junni nit sept mille personnes ñoo xam ne ñii dañ leen a dimbali ci ay dëkkuwaay donte bare bi loolu am na ci yeneen bu yokk ñii ñu dimbali leen ci ab dund ñii ñu dimbali leen ci wàllum paj ñii ñu dimbali leen ci seen yenn yeneen soxla seen yeneen soxlay bopp loolu bokk na ci liggéey bu am solo boo xam ne mi ngi koy def ci wàllu ndoxum naan Touba kanam jot na cee jënd lu ëpp juróom-ñaari pompe pompe forage yu mag yi li ñu yóbbu ci ay quartier ci ndox ëpp na ñeent fukki quartier fi mu ne nii may waxee yéen am na ñaari camion citerne yoo xam ne bis bu set ñu ngi xëy nekk biir dëkk ba di may di may quartier yi manqué ndox ndox am na saxaabi yu bu ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko way juróom bu jigéen dafa génn àdduna ndax mën na koo saraxet yonent bi ne ko waaw mu ne ko ban sarax moo gën yonent bi ne ko joxe ndox sallallahu alayhi kon képp koo xam ne yaa ngi jël sa ñaar téeméer di ko def ci Touba ca kanam Touba kanam di ci jënd ay pompe forage di ci jënd ay tuyau di yàqali ndox mi nit ñi di ci naan jàppal ne boo ci yéenee sa wayjur moo xam ne ngi fi wala mi ngi wala wala wala jiitu na wala yow ci sa bopp yaa ngi def ngeen di sarax te loolu yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam kon ngir bañ a guddal foofu sax dinaa fi jaare wax ne fi ne nii am na benn cadre unitaire boo xam ne sëñ Mountakha joxe na ci ndigal sëñ Ousmane Mbacké jiite ko ñu ànd ko commune bi ak préfet di liggéey ci jéem a defaraat ndox mi ndax jafe-jafe yi bari na te màggal ko jot mu xaw cee feeñ kon ngir jéem a tënk kàddu yi dama am daal Touba ca kanam bokk na ci défi défi yi nga xam ne am na ko te ciy liggéey te yàlla dimbali ñu ba ñu am ci lu baree bari mooy mbooloo mu ànd ba noppi déggoo dëppoo loolu jafe-jafe la ku ne xam ne ne seytaane mi nga xam ne moom la ñu yàlla booleel ci àdduna mu doon suñu noon yàlla nattooñu ko mbooloo mu nekk dina ko jéem a dugg indi cee xalaat du ma ne amul ci Touba ca kanam ak ay nekk am waaye yàlla dañu cee defal tawféex tawféex ji ci njëkk mooy dañoo am ay kilifa yu mat kilifa yu nekk suñu kanam beneen tawféex bi ci def mooy yàlla dañoo dimbali ci ñu waxtaan ci waxtaan te ay nit bi féeg ñi ngi waxtaan réeroo bu am ci seen diggante mën nañ koo dindi loolu ci def yi ma doon dund léegi la bokk bokk na ci def yi nga xam ne ci laay jeexale nag mooy fexe ba mbooloo mi nu ñu mën a toll ak dayo bi nu mu mën a toll ak riir mi lu mu bari bari ñu sax dàkk ci li nga xam ne moo taxoon Touba ca kanam jóg te mooy pas-pas fas yéene liggéeyal sëriñ bi rek te yàlla tax ndax mboolookat bu baree riir mi bari lu ne mën na caa dugg waaye dafa ci yi nga xam ne jamono bu nekk ñu koy fàttalee mooy lu mën a xew mbooloo mi na doon mbooloom Serigne Touba rek mbooloo mi nga am genn kilifa képp mooy Serigne Mountakha moom la ñuy déglu la muy rotal mu jëm ci Touba ca kanam moo di ko jaarale ci Serigne Aliou di ko jaarale ci Serigne Abdou Lahat muy agsi ci mbooloo mi ñu koy jëfee lool lii mooy yi nga xam ne mooy yi Touba ca kanam di jànkonteel yi may wax yépp nag naan ay jafe-jafe la yu Touba kanam di jànkonteel day loo xam ne mooy jafe yi ñëpp yi am waaye nag day loo xam ne Touba ca kanam da koo booleeg nag di dox tëriwu koo dox te it booy xool sax danga naan moo koy dolli ndax àdduna ci boppam la yàlla moo ñëwut nga jóg ne da ngay liggéeyal yàlla rek lépp daal di teew ci sa kanam mu daal noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dellu di gërëmaat soxna yi nga xam ne seenu teewaay ci jataay bii boo ko doon xayma da nga naan bu saal bi doon junni nit juróom-ñetti téeméer yi ñoom la jërë ngeen jëf soxna yi ay ca murit Touba ca kanam weer wi dee na wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat Serigne Touba liggéeyal ko warteef la ci ñëpp